mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad seen mbokku Cheikh Tidiane Guèye ak Essa Mbaye ñoo fi del si waat ak yéen fii ci Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul ndax continuer ak ci ñaareelu xaaj ci waxtaanu koor njëlbeeni xaaj bi Cheikh ñu ngi doon laaj lan mooy ngëneelu koor nga isil leen ñu ñeenti buntu tontu woon ñaari yeneen ñaari lañ ñoo laaj lan lan lan la si jullit bi wala sukkandiku ci koor gi tabarakallahu alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنين يون yéen ñii seetaan tabarakallahu Sahel Network TV ni ko tabarakallahu suma xarit alxaaji Issa Mbay waxee nga xam ne tabarakallahu waxoon nañ fi ak yéen waxtaan yoo xam ne tabarakallahu waxtaan yu tegu ci waxu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. yéen ñi ñu doon topp di ñu déglu wax dëgg yàlla waxoon nañu ko yéen ci fukki fan yi ñu nekk tabarakallahu nga xam ne muy fukki fan yu njëkk yi génn guñ ko fukki fan yu njëkk yi génn guñ ko waaye tabaarakallaahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fukki fan yu njëkk yi yërmande la yi ci digg bi njëggal la yi mujj yi dafa nekk goreel ca safara ma waxoon ak yéen leen yonent bi mu ne sallallahu alayhi sallam aljana de sopp na ñeenti nit mooy ñeenti équipe ñeenti team ñeenti team yooyu mooy ban ak ban mooy ma waxoon ñaar ya xam naa tabaarakallaahu ma jéem tasaarewaat ñaar yi yéen ñi ñuy sétan nga xamne ne tabaarakallaahu ñi ne bitim réew ak ñi ne bi gam yëpp nga xamne dañuy top online bi di Sahel Network TV nga xamne ne tabaarakallaahu mooy fii rek ah la waxtaan ak yéen waxtaan wo xamne lépp luñ ci wax rek qala allah qala rasul rasulullah sallallahu alayhi wasallam wali qala wali qala zalika aljannatu mustaqatun ila arbaatin nafar mooy ci loolu la yonent bi waxee ne aljana sopp na ñeentu kuréel ñeentu kuréel yooyu nag ma waxoon ban ak ban waxoon na ñuy jàng alquran kon yow mi may seetaan lesin bi ma lay njëkk a jox mooy fexeel noo am ak kóllëre ak téere bi yàlla bi fexeel noo am ak relation mooy fexeel na am benn cofeel bu dox sa diggante ak téere bi yàlla bi donta xamoo ko nag donta mënoo ci benn alif mënoo ci benn baa fexeel wut sa benn kaameel bu sell kaamel bu jekk nga wut parfum di ci sotti teg ko foo xam ne poussière du ko laal soo xëyee ñëwal rek jël téere bi nii làmb ko fóon ko raay ko door dem liggéey man maa leen jox boobu képp ku koy jëfandikoo yàlla dana am leneen lum la wan ne lii wane ne yonent yàlla Muhammad yàllaa ko yónni mooy alquranul karim kon mbokk yi nañ fasante kóllëre ak alquran nañ joxante ak moom rendez nañ ko jox 24 hours yi nañ fexe benn hours wala benn 30 minutes boo xam ne nañ ko ko jox rek donte yaa ngi sa liggéeyukaay donte yaa ngi ci biti donte yaa ngi si waañ bi di togg donte yaa ngi ci kër gi do foo mën a nekk man Cheikh Tidiane Gaye jox naa la benn message boo xam ne yonent bi mu ne ku bëgg sa àdduna di dox ku bëgg sa lépp di sotti fexeel amal connexion ak alquran te loolu xadisu rasulillahi la sayyidina Ali karamallahu wajhu moo toog ak xaaris saaba yëpp toog wër yonent yàlla muhammad yonent bi wax leen ne leen sa takoonu fitanun mooy fitna dana ñëwi ñu ne ko xultu fa man maxruju minha ya rasulallah fitna bi bu ñëwee comme coronavirus bi lu ñu ci mën a génne corona bi lëmbi àdduna yëpp buñ ci bëggee génn nan la mu ne kitaabullahi فيه نبأ ما قبلكم وقبر ما بعدكم وهو الحق ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله كون jàpp leen ci alquranul karim téye leen alquran mu doon mu doon loo xam ne tey da nga koy def rek sa diggante ak sa borom comme ni nga jëlee sa téléphone بي bu charge bi jeexee nga dem charge pour tal sa connexion bi bu connexion bi jexé nga dem jëndi crédit jëndi yow ni nga koy défé mané fexeel sappe alquranul karim baqara naa si loo ci man rek dee ko laal boo ko manul sax dee ko fóon di ko laay boobu benn la ci alquran bëgg na ko te loolu ajjana bëgg na kooku beneen bi mooy ku wutu làmmañam wi mbokk yi bëri na ko torox bëri na ko alaku bëri na ko yàqule lii moo tax nga yàqule bëri na ku liggéey ba jege yàlla ba dara desul lu dul sa tànk bii tegu ci buntu aljana nga wax loo xam ne yàq na loo defoon junni xat loolu nag alxuraan nekk ñu ko njëkk ko wax képp koo xam ne looy wax lu baax la wax ko bu fekkee du lu baax noppi ci nga ànd ceeg màndu yëg nga ne gis lu bon nettali ko sa yow ka jëf lu bon yow yaa yow yow yaa gën a bon hmm? ko déedéet kii jëf lu bon maanaam tey masalan kenn vidéo def lu ñaaw rek seen la ko si téléphone bi yow nga jël ko ci téléphone bi jéem ko yóbbu ci social media bi yow yaa gën a bon ko def loolu yàlla moo ko waxal boppam bu bëggul kuy manifester lu ñaaw kon fexe wëttu suñu làmmañ yi suñ làmmañ yi nag ndeysaan euh, dañ koy booyal rek dañ koy booyal ci deru gor yi dañ koy booyal ci jëw dañ koy booyal ci waxu caaxaan dem seetaan tele ci weeru kooru bëccëg wi nga ne da ngay wut lu la lu dàq stress ay waaye lu dàq stress jëlal alxuraanul karim stress rek nga bëgg lu la ko dàqal ay waaye demal jël alquran wal aadiyaati dabha fal muuriyaati qadha wal aadiyaati dabhan fal muuriyaati qadha fal muqiraati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jamaa inna al insana li rabbihi lakanuud xolal alquran ni muy teglante loolu rek stress boo ko bëggee di waaye xam nga lu lay génnee la stress am mooy nga seetaan koo xam ne waxu caaxaan wax ju teguwut fenn ñu naan day maye lu muy maye moom moom lu muy maye wax loolu dëgg maye yooyu yëpp nga gis ne nit ñi moom leen gën a jox yitte te ñu am loo xam ne tey bu dee maye rek la alxuraan jàngale na yenn léeb yoo xam ne ku ko gisoon bu dee reetaan la rek da ngay reetaan ba pare am tiyaabu reetaan ba pare am tiyaabu ci alxuraan la ne kon wëttu suñ làmmañ yi loolu yi tabaarakallaahu beneen bi ci topp mooy yi nga xam ne ñooy wor weeru koor bi mbokk yi am na ñoo xam ne genn wàll yëpp du ñu woor hmm? weeru koor am ci ñu ëpp pour ñu hor woor yombul de naaju tàng mar xiif nga gis loo mën a lekk yëpp nga <laughs> yombul léeg nga dajek nit pungalum jëmmu ko yem ni yow doon góor jigéen sa man nga ko understand jigéen léeg-léeg moom du woor loolu yàlla may na ko waaye léeg-léeg nga dajek pungalum góor moo ne all the things yi muy oke, léppam a correct mu téye mburu di matt ci digg mbooloo loolu teguwut fen yow boo xoorut wala nga xam ngàntal woor waay waay woor maalal weer wi bu lekk ci kanam yi ñu woor nëbbatul yëg ne benn yi koo xam ne du jullit xam nga lu ko yàlla jéggale hmm. dooma ma yor benn mburu di ko lekk ca mbedd ma moom du jullit de waaye dafa jàpp doom ji yóbbu ko ba ci ba ci ba ci kër ga wut yar cew ko na ko yow yëgoon ne jullit yi musulman yaa ngi woor ngay lekk ci seen kanam bi mu faatoo yàlla ne ci xor may weeru koor xare naa ko aljana aljana lay dugg bàyyi force kon ñu xormaal weeru koor bi ñu ñi nga xam ne dañuy woor weeru koor ñu ñu tabaarakallaahu bi may tëjee nag nga xam ne mooy ñeenteel bi wax naa la jàngal xuraan wax naa la wutu sa làmmañ wax naa la ñiy woor weeru koor xam nga bi ci ñeenteel hmm. mooy ñi nga xam ne ñooy leel mutimul jaina mooy ñi nga xam ne ñooy leel way xiif ñi ñuy jël lekk di ko defar ba ba mu ok. Mm-hmm. nga ñëw comme comme Mouhamed mbay li muy lii weer wu ne. Mm-hmm. dana dajale lu mat three thousand def benn lekk ba correct indil ma ko uniquement ne ma ak ah, oustaz bii de yow sa ndëgul koor la. maanaam leeral ñam ñiy xiif ñoo ñit aljana tabaarakallaahu dafa wax ne suñu bëggee bëgg naa leen suñu bëggul bëgg naa leen. te mm-hmm. yëngu ne yàlla tagg na fatimatu bintu rasulillahi ak Seydina Alin ci alquran xam nga lu leen ko joxam hmm. joxe ñam wa yutrimuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutrimukum li wajhillahi la nuridu minkum jasaan wala sukura inna naqaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fa waqahum allahu sara salika al yawm yàlla ko wax yàlla ne ñii lekk xam nga foofu tabaarakallaahu xam naa ne dana ñëw ci suñu biir waxtaan nga xam ne joxe ñam li ci ne nga xam ne ñooñu dañ woor ba ngoon ba ndëgu jot amuñ lu dul ñetti mburu lañ yor mburu comme fufu fufu lañ yor ñett ñëw toog pour dem ba war a lekk am ko ñëw taxaw ci buntu kër gi ne leen waa waajuñ tëjoon prison de prisonnier kaso bàyyi ko amul lu mu yóbbu kër ga mooy yalwaan yéen waa kër yonent bi bimu waxé waxee rek Sina Ali dafa xol Fatima Fatima xol ko ali nako ñu ngi may askanale ci kër yonenti wa yama fa yama fa gën a yaa ma yaa ak moom de yow la xol ne la yaay bidda atum min mu ne ko ah lo wax mu ne ko lo wax la wax ñu ñu génné mburu ya génné fufu ya jox waaje yóbbu ñu continuer hat oor def ko ba ñetti fan yi man ñetti fan yo xamne ne xëdd du am ndax amuñ doole ndëgu rek lañuy am bu ñu demee ba war a ndëgu am ku ñëw yalwaan ñu ñu jox ko ko ba ñetti fan yi mat ñoom ñëpp dañ daanu xam sa néeg bi ñëpp xam jibril la yàlla xoon na ko dewal ma ca kër gor yële waxal ma ak ñoom wa yut'imuuna ñu ngay joxe ataama seen ndëgu ya ala hubbihi ànd ak bëgg ko kon tabaarakallaahu joxe ñam baax na fépp waaye ci weeru koor la gënee kon yow mi may déglu yow mi may seetaan fii ci Sahel Network TV nga xam ne tabaarakallaahu mooy online bi nga xam ne mu ngi fii ci Banjul boo defee Sope Courage boobu daal lu ñu dugal ci suñu waxtaan ci waxtaanu koor da ko seetaan te incha allahu rabbi sa rakk la wala sa doom sa taalibe Cheikh Ahmed Tidiane fii ci Banjul man ak Essa Mbaye tabaarakallaahu ñoo ñëwoon rek xëy na dañuy dagg wax ji foofu ngir time xoj nañu suñ ko daggee foofu daal beneen i waxtaan danaa ñëw gën leen a leeralal foofu diggante Seydina Alioune ak Fatima waaye wax leen nit li ci joxe ñam ak li ci joxe lekk lan moo ca nekk ñu door a continuer nag ndax koor gi ngëneel yi moom bu ko nit doon wax fii fukki weer ak ñaar ngëneel lu jeex kon daal foofu laay tegal ma loxo jërëjëf sëñ Cheikh asalaamaaleykum ñu ko waxee rek ah, yi mu ngeen a subscribe ci ci ci Sahel Network TV pour mun a am waxtaani koor ak seen mbokk Cheikh Tidiane Gueye ak Essa Mbaye xanaa ñu dellu nuyuwaat borom kër gi alaaji Aboubacar li ak soxnaam soxna Oumy li ah, di nuyu naataango yi nga xam ne ñooy seetaan fàttewuñ nag suñ caméraman bi Wilfred ñu ngi ko gërëm di ko sant ci taxawaay bi asalaamualeykum wa rahmatullah